jaajëf gars yi maa leen di bu baax a baax di leen siyaar yéen ñi nga xamante ni yéen may bàyyi xel ci sama chaîne DOS maa leen di mais gars yi damay ñëw rapidement tey ci euh, benn vidéo muy vidéo ndaw soosu di tuddoon Sané Madio ah. <laughs> vidéo bi defoon tour ci réseaux sociaux ah. ak beneen mbir aussi muy photo xale bi nga ni gis muy xale bi photo bu nice bi nga xam te moom tamit circulé na fépp si moment bi nga xamante ne Sénégal jël na Coupe d'Afrique mu nekkoon mbégte bu rëy nag franchement parce que euh, ba léegi nii sax am nañu jàpp ni coupe bi ay rêve la mais nag dëgg la man mi si laa mais franchement gaynde yi sigil nañu indil nañu lu ñu yàggoon na rêvé mais ndaw si def euh, vidéo Saana Maaja bi franchement moom nag dafa euh, ñëw dugal ci loo xam ne bokku ci ndax euh, yaay booy àdduna dafa dafa doy waar quoi xawma ku dugal ci pexe yi ku ci dugal ak ku la jox xel mi mais defe naa ni soo toogaatee xoolaat sa bopp di nga am loo yëg quoi di nga rus pour man ndax euh, maa la njëkk a déglu ci rajo ngay expliquer naan sama jëkkër waaw daf ma mere dafa def li ndax dañ koy woo fu nekk naan dañ ma envoyé cent cinquante mille sama papa moom ma jox quarante mille yu ma fajo dama feebaroon xam nga yamu ci ma seetaanaat beneen vidéo nga ci wax naan euh, xale bi nga xamante photo bi nii rek la ko def moom dañ ko woo fu nekk te man maa ngi ni saana maa ci sama vidéo yi fu ne la wër sama jëkkër patati patata wax yoo xamante ni yow carrément yow mi da ngay xam ni kii ab dóorkat la dafa bëgg rek comme ñi nga xamante ni yàgg nañ koo def ndax lii du Sénégal yàggul yàgg na Sénégal da ngay gis koo xamante ni day xëy xëy xëy xëy xëy rek xam lu mu am am am am am am euh, comment dirais Euh, def benn vidéo wala dara gars di ko circuler fu nekk léegi li mu njëkk a xalaat mooy nañ ma invité plateau wala nañ ma dugal koppar gars yi dimbali ma xam nga ci koo xamante ni tey jii nii am na ñu gën a yelloo ndimbal loolu imaginel ci euh, jamono bi nga xam ne Sénégal gagné ne coupe bi am na ñoo xam ne def nañ soog am na ñu si gaañu am na ñu faatu ñoo xamante ni euh, dañ see jële seen ñàkk seen bakkan ndax kontaante moo leen jàpp ñu amee cardiaque maa ngi seetaan benn vidéo sama benn papa boo xamante ni doomam bu jigéen moo si def muy dem hôpital gars yi di ko négliger ba doomam ji jële ci euh, ñàkk bakkan est-ce que gis ngeen benn média bu ko publier gisuñu ko léegi kii xëy xëy euh, xawma ku ko jox xalaat bi ñu fësal ko ci rajo yi di ko di ko ay micro muy wax di wax ay conneries yoo xamante ni ko fenn àdduna looy def day sóoraale ëllëg ndax dangay am njaboot say njaboot bu nu màggee dañu am xel comme ni nit ñu amee xel bu nu toogee di seetaan mbir yi nu mu demee dana ne ah sama yaay lii muy def nii moom moom moom mooy lan. xam nga il faut que des fois ngeen di bàyyi yoo xamante ni da ngeen ci sóoraale seen njaboot ndax internet dafa nekk loo xamante ni du luy dañ mukk fi lañ koy bàyyi muy man mii ma def benn vidéo boo xamante ni nekk naka sudul noonu mu ñaaw wala mu nekk leneen. ëllëg samay njaboot fi lañ koy fekk mais dama xamul léegi xeetu xeetu bëggulu yomb li nga xamante ni nit ñi bëgg nañ ko ci fan lañ ko teg ci fan lañ ko teg am na ñu gën a yelloo ndimbal léegi dara dalay xuri sax nga génn def vidéo dimbali leen ma nangam am na ñoo xamante ni sax dara du leen jot ah? ñu commencé wax dama def lii dama nangam dama num tuddati te wallahi azim am na ñoo xamante ni te dinañ ay at mais seen ngor mayu leen sax ñuy génn di wane di fësal ni dama feebar dañuy toog xaar yàlla ku leen mën a dimbali te yàlla tax ñu dimbali leen donte am na ñoo xamante ni mérito nañu ndimbal am ay volonté yoo xamante ni wala koo xamante ni tey yàlla def na yorul dara mais kàddoom boo waxee ñu dégg ko mu def ko te yàlla tax mais mbir mii dafa nekk mbir moo xamante ni si gàttal soo ko desee yow da ngay ruus sax yow donte sax yow sa yoon new si mais da ngay ruus ndax ndaw si taxaw sama jëkkër daf maa def lii nee na ma yónnee cent cinquante mille fi ñu yoo invité xale yi invité wuñ ma ko pour lan yow doo comédien yaay booy da nga doon supporter gaynde yi am mbégte rek pourtant boo xoolee euh, moment yi déroulé bi ñu gañee kan bi am na video yu gën a drôle yu gën a xoromu mais gisoo kenn taxaw naan ay euh, ndam lii wala laa wala nangam mais ki jox xel mii nii lor na la ndax xam naa danaan la Sénégal dof-doflul ba am xaalis rek ndax nii ngay def nii boo ko defee après Sadio maane daf lay recevoir su la recevoir jox la xaalis peut-être non non non non non arrête arrête vos quoi ci ay tappale rek ngeen nekk nañuy liggéey tey doyloo li ñu yàlla jox. xaalis des koy liggéey xaalis bu yomb ah dewuma nii de euh, <laughs> doo si jariñoo de mais lu yomb moom lu yomb rek koy jeexal de franchement mais man moom wax dëgg fa yàlla damaa rus si vidéo bi moom vidéo bi nga mujjee def nii bàyyi di teg say say say dóor dama si rus franchement beneen bi si muy euh, ndaw si euh, ndaw xale mu ndaw bi bi def photo bi muy photo bu bu rafet boo xamante ni tamit tourné na si tour yëpp ndax ndaw si boo gisee photo bi ak mbégte mi ñu ko photo dafa nice mais après gis nga tamit tappali si gaa yi dugal xam nga recevoir ko biir télé wane ko xam nga nga gis ay mag yu ñàkk fulla xam nga doo comprendre comme si ndaw si héros la quoi dafa def am na ñu ko gën a def lu rëy lu rëy sax waa léegi ñi nga euh, ñi nga xamante ni dañoo faatu euh, ci ci ci ci ci ci ci ci bi ñu ma bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu euh, célébré suñu coupe bi ndax ñooñu rus wane nañ leen ndax aussi tamit tey jii paa loolu ma doon réclamer si hôpital tey est-ce que loolu fësal nañ ko te si ay médias la doon dem dafa am loo xamante ni des fois yow doo comprendre lan la quoi donte man photo bi man dama ko apprécier mais nag fi photo bi instant bii nii. bëgg fuñ ko yóbbu jël ndaw xale bi xam nga invité ko muy wax te koo xamante ne yaa ngi jóge yoonaa seeb xam nga manqué woo dara ñu lay invité si ay télé mel ni yow da nga def lu rëy rëy te ni mu doon supporté noonu la ay moromam doon supporté am na xale yoo xam ne dañ doon supporté def ay photo yu rafet mais xale bi peut-être yoonaa seeb la dëkk xam nga ñëw na maa ngi gis wax ak moom anglais patati patata du question la nag affaire de soxor quoi parce que sénégalais moo moo gaawtu boo waxee benn affaire ngi nii da ngaa soxor da def lii non non fekk lu ñàkk fay dañu bëgg a jël loolu valoriser ko te defe naa ni lu ñu war a gën a mën a wane mu ngi fii man suma ma euh, déggee euh, si yenn yu ñàkk fayda yoo xamante ni tey jii nii am na ne ñu ko gën a mérito man damay damay damay toog sax ma ni non non non doo comprendre franchement waroon ngeen a def tour ñi ñàkk seen bakkan ci ci ci ci ci bi ñuy manifesté wu ak ñi si def accident ñu wane leen fësali ñu leen mën a dimbali ñu dimbali leen moo gënoon am solo que ay nekk fii di def yoo xam ne naka su dul noonu mais nag yaay boobi moom mu mujjul trophée bi moom borom Sané Madio bi vraiment yaay booy yaay booy yaay booy yaay booy yaa jël trophée bi quoi xam nga. jël nga trophée bii doole <laughs> da ngaa bëgg Sadio Mané recevoir la wala da ngaa bëgg gars yi invité télé pour jox la si xaalis bi ah. waaw kon xam nga Sénégal moom dañoo am yërmande moom Indo Touré ñu dugal la koppar yónnee la xaalis garaawul yërëm leen ko mais day door de en tout cas man damaa rus sax. a ci gars yéen tamit seen réaction seen ay commentaire boo leen commentaire ba pare bu leen fàtte abonné bu ngeen abonné ba pare ngeen ba seen cloche notification ba vidéo bu ñu dugal ngeen mun ko am.